waaw mi ngi noonu. waaw kooku sunu nijaay. nijaay daaw ñëwoon na moom ñëpp moo di ak Cheikh Sey bu baax nii. man ak moom nag petit ba grand la. li may la li tax ma naw ko Mbàkke. ci dëkk ñu rey la nag nga ñibbi di ñaan yéen. Ibrahima mu am. ñun Pikine. ñoo dëkkal mi ngi leen jàppale waaye bu sañoon làmb ji moom rek. du ci jariñu bu sañoon liggéeyam rek du ci jariñu moo tax bu jëfee ba ci ma dama ne ko ah mu ne ma déedéet Aziz man bëgguma kenn tudd jëf bu may jëf ndax ki may jëfal moo ma dimbali ki may jëfal lu ma man moo ma ko defal ma ko ah ndokk ndax jàmbaar yi Serigne Fall yi ngay jëfal danañ ñaan yàlla Mbàkke nga yàgg ndax sëñ Fallou sa maam laawul xeebaate te lu mu am joxe ko dégg nañ ci waxkat bala mu wax waa ji daa ñëw soxla gàtt war a tudd ñu ko toogal ne lu ñëw nu ko mu jékki jekki ba ci yàgg ay yëf ñëw mu daan na ko demal ci ginnaaw ñu yeewu am xar jox la mu dem ñu yeewu xar jox ko mu yëkkati la mu am jox ko muy dem daan na ko waaye sëñ Fallou mu nu ko am mbàkki mu nu ko waaye joxuñu ma ci xar yar yi mu ne xar yar yi ñun ñu yar ñu ko jox moom suñu fàlloo ko wax loolu waaye Ibrahima mii ñu naan gaynde bi ni miraas baayam dañ la ko loo séddu mu ne xamakuma waaye fàdd ci la moom defe na ne sa digganteem ak sëñ bi kenn war cee taxaw bu sañoon moo ciy man bu sañoon moo ciy gën bu sañoon kenn du ko ci ëppale moom chaque jour ndongo lay doon moo ne ma Aziz ma ne ko daa mun ma boo demee santal ma sëriñ bi li tax ma ànd ak liiru ànd ak jamaïcain ànd ak sëñ Fallou am ak samay mbokk ànd ak journaliste yi damay wan ni Sénégal ak àdduna sëñ Moutalla moom laa bëgg moom laa gëm ci moom laa wax asal su naf si bu sëriñ Modou bu sa Dieng yaakaaruma kenn moom laa yaakaar te damaa bëgg nag biir nil ko diaspora beeg àdduna ak li ko wër moo tax ma ànd ak sama nijaay ànd ak samay mbokk ànd ak samay xarit ànd ak yow mii di sama géwal bu nu demee presse beeg àdduna ñëpp xam ne man sëriñ bi rek laa bëgg moom laa wër Mbàkke nag ñu lay xamal ne lu mu am bokk na ko nit ñi ci ordonnance yi ci nagu gàmm yi ci xaru tabaski ci léeg-léeg nga am màkkaan moo ma xam ne mënoo caa dëkk amoo fa loolu foo dëkk mu yëkkati titre foncé jox la ku ma àndal bëgg na nga yokk Pikine gépp gi mu dëkk ak Kër Masaar ak Géejawaay ndax Pikine moomu ko Géejawaay moomu ko yëmbal moomu ko àddunaa ko moom ibu ibu ñëpp la bi ñuy nekk xale ñu ko doon woowee ñun ibu jumboo waaye boobu danoo xamoon ne moo nuy sàppali waaye loo ko gën a ñaanal doy buy wax ak yow léeg-léeg sax da ngay defe ne yaa nax fekk boobu naxoo ko daa dal mi am yar am taalibe ndax ñii mu àndal ñu ngi n'importe qui ay ay moroomi naw la promoteur lam la su meloon na neen du ñu ànd ak moom Mbàkke ñaan nag nga yàgg fi te wér te ñaanalal ñu ko ñaanalal ñu ko bu baax ndax nag gënuñu judd waaye nag ku yëkkati teraanga am di la defal faaw bu sëriñam toogee sunu sëriñ toog nga birneel ko ku jàq ba bërki démb am na sunu benn mag boo xam ne moo ko yóbbu Màkka ma Ndiaye barki dem bi mu nekkee ci ak ñeneen ak ñeneen man ak ñeneen ku mu mën a doon mu jàpp la te bu defee fàtte la kon nag damay jox sama mag liiru jaan mu sànni ci ay kàddu ñoom la nit ñëpp wax ndax ñun li tax ñu ñëw Mbàkke ñu nu la dégg rek bëgg na ñu nga dimbali ñu. liiru demee na loo jege si. Mansour Ba. ñun talaa mu Serigne Modou Bousso Dieng yàlla na fi yàgg tey. Ba. ñoo ah, ni ko sama waa ji waxee rek. Mm-hmm. Abdou Aziz am na wax mel nii. tey wàcc suñu baat bi dañu am lu ma mën a wax. Mm-hmm. dañuy xër. ñun ay taalibe lañ. Mm-hmm. ay Baye Fall lañ. waaw ah, ñun nag dafa nekk suñu xarit. nekk suñu mbokkum taalibe wax dëgg yàlla bi mu yàgg koo def waaw ànd ak ay nawleem ay xatam ku mel ni Fallou Ndiaye jawayka moom xale yi ñoom daal si ah ñoom ñëpp def dérangement daal ñëw te wax dëgg yàlla ñu ko bëggoon naa ni moom moo leen wax jaru ko ko dafay ma ngir gis waaw dafa ma xam nga ñuy wax ànd yow mu tamit yow mu baax mi xam ne yéen ñaar yàgg Aziz vraiment ah, Aziz borom géejoo borom pigi na ah. wala borom borom géejoo waaw ah, alhamdulilah waaw ibu nag nekk baax ñu koy ñaanal li mu def yàlla ko yàgg man ndax ak taalibe li lay jël ak taal bi nii rek lay jël waaw hmm. taal bi leen ci waxoon nañ fexe ba ak seen ñoom ràññee ko hmm. tubaari kàlla macha allah moom ak seen ñoom ràññee ko na hmm. koy ñaanal mu yokk ko rek yàlla koo dëgg yàlla ndax ñun suñu xol seet na ci ndax euh, nit moom la yaakaar yóbbu la kooku ràññee ko di ko ñaanal ku nekk loo ngay ñaan yàlla léegi ñoo koy ñaan lu mu mën ren yàlla mën déwén lu ko raw wax dëgg yàlla lii suñu xool dañ see sedd mm-hmm. ndax ñun ñëpp la ko defal mm-hmm. ndax suy jot yëkkati ñu ay nitam ne leen kaayam dem mm-hmm. dama jaar ci sama sëriñ kon nag la ñoo ngi koy ñaanal lu mu mën daal yàlla na ko mën déwén te sëñ bi li muy def nii wax dëgg yàlla ci ay mbokk de moom jaar laa doon ko ñu gën ma aw gaar añu ko yeewoon ku ma yëg ma ji ku ma yëg ma ji ma sama lu mu mën ko mu jëloon ñu ko raw sëñ bi dañ bëgg ñaanal ko baax a baax a a baax ndax ndax ndax dëgg yàlla yoonu taalibe bi moom wax gis nañ ak taalibe ci moom gis nañ ak taalibe ci moom gis nañ ak oyof ko ñaan yàlla ko yàlla defal jàmm lu mu mën doon na ko mën jël jërë ngeen jëf jërëjëf ñu jox jamaïcain nga xam ne wóllëreem la la xaritam la waaye ñoo bokk li ñuy liggéey ko ci nawloo moo tax mu nawloo ko kilomètres jërëjëf mhm. mbokk yàlla na fi yàgg mi sant yàlla bu baax a baax a baax fekkee jotaay yu mel nii ndax mënoon nañ ñëwoo ci beneen jotaay bu saalu jotaay bi xam ne mhm. kon lu toll nii màggal sunu xarit sunu frère sunu nawle jóg ñëw di siyaar sëriñam yëg ñu ak am fi ñu teg moo tax mu woo ñu boole ñu ci délégation bi. bu ñu woowutoon sax dañu jóg ànd ak moom waaw nag suñu frère la te li ñu def nii lu baax la te ñëpp la ko defal tey lii képp ku nekk ci làmb wala nga bokk ci ci làmb mbégte la ak kontaan waaw di kontaan nag ci sang bu tedd bi ñu jàkkaarloo. Hmm. def lu dénkaat ko sunu bopp xanaa ko ci moom ñaan lépp lu ñu mën rek déwén ñu mën lu ko barke Seydina wax na ndax daaw teewoon nañ suñu xarit indi fi lu mel ni ñëw siyaar si sëriñam ren mu teewaat déwén bi ñëwaat fii li mu def ren mm. déwén del noo def ci ëpp loolu barke Seydina wax na Doudou Diagne ñu ñu ànd ak Lamine Modou Anta Babacar. te mm-hmm. fu ñu ànd ak jógee Dakar ba fii ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax. Mm-hmm. en tout cas kilifa yu mel ni mën na teew ñu yëgal waaye day jot rek nit moom boo ànd ak moom ngeen ànd ci teraanga. Mm-hmm. nga xamal ko bu baax xamal ko yar. su kilifaam teewee nga seedeel ko ko. en tout cas daal Ibrahima ko am yar la. ak ku baax la tamit ku la teg place. nag sëñ bi ñun dañu sàkk nga ñaanalal ñu. yaa ngi ci sax waaye naa ñaan di gën a yor. ñu jox Serigne Fallou. mu màcceel ci moom it nawleem la nekk nit ku baax. bu ñu paree ñu jox nijaayam. asalaamaaleykum. génn tuuti. ñu ngi kilifa gi ci kër. Serigne Fallou. di ko nuyu bu baax di ko jox suñu di ko yóbbal suñu ziar. di ko wax ne ñu ay ay ndongo ñu lay ziar bu baax. di wàcc suñu bopp bu baax di la gën a ziar. di wax ne vraiment luy lëkkale ci ñun ndax comme ni ko Jamaye Keng waxee. moom suñu xarit la suñu frère la te Ibrahima bu choisir lu mel nii choisir yi bu ñu ànd ak moom délégation bi cër bu ñu jox la cofeel moom ci ñun moom moom ñëpp xanaa di ñaan rek nga ñaanal ñu ko bu baax ndax nag bëgg nañ nga ñaanal ñu ko bu baax bu baax a baax sax nag ndax nit ku baax la ndax Ibrahima li muy def dafa yéeme yi kawe njort boo xam ne dafa kenn mënu ko wax daal ci lu baax ci social ndax nit la koo xamante ne nii heure boo ko fekkee mu taxaw ci social lay doon social lay wax fàllu kii de war naa ko defal lii kii war naa ko defal lee loolu nit ku baax moo koy def ndax bàyyi nañu fi am lu toll noonu wala am lu tollut noonu te duñ ko def wala ñuy def ci leneen te moom yàlla nga koy xiir muy def ci lu baax kon yaakaar naa bu nee day màggal si ñëw ziar si la indi àddiyam kon duñ mën di ko rafetlu di ànd ak moom di wax ne am nañ mbégte bu baax nag ngi taxawaayam bi di ñaan lépp lu mu fi def ren bu déwénee suñ boom fulal ko ko mu nekk yeneen yokk doolu yi baax di ñaan yàlla du ko fekk cette année di ànd ak moom di ñëw di indi teraanga ji ndax nit la koo xam ne nitu social la nitu teraanga la kon dañuy ñaan lépp lu mu sumb suñ boobu ñu yembal ko mm. ci barkeb Sëriñ Tuubaa ci màggal bi ñu jëm mm. ndax Sëriñ Tuubaa mën na ko mm. te am na ko yow di la ko ñaan di la ko dagaan bu baax ne la nga ñaaral ñu Ibrahima di nuyu nag ñu ma àndal yooyu jaan suñu mag la ak euh, kilifa gu teel gi nga xam ne ni moom Abdou Aziz nit ku baax la moom foo ko fekk lu baax rek lay wax ndax dañuy daje ci ay milieu yu bari mais lu baax rek lay wax yooyu di suñu mag di suñu xarit di suñu wëllëre moom it nit ku baax ci monument Guédiawaye hmm. ay rakkam yëpp ànd ak moom hmm. ku mel ni Lamine Litiyu Babacar hmm. vraiment Modou Anta ak ñu àndal ñëpp ñu leen sant leen gërëm jamay ge moom suñu frère la du suñu nawle promoteur moom it nit ku baax ndax Ibrahima da ko comme ni ma woowee ñu bàyyi ñëw te yu mel ni moom ku baax rek moo ciy ñëw kon daal ñu ngi lay dénkaat suñu bopp ñu ñu ànd ñëpp di ñaan yàlla bu dee déwénee ñu àndaat comme ni ñu woon nii nit ñi gën a yokk suñu gën a ñëw gën naa jege ñu gën ñoo ñaanal daal Dakar mm. daal ñu ngi sàkku ñaan gi baax a baax mm. ci barkeb borom màggal gi mm. ci barkeb sëñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa moom lu ko waay ñaan may la ko kon daal ñu ngi ñaan ci barkeb sëñ Tuubaa nga ñaanal ñu ndax soxla nañ ko bu baax surtout Ibrahima nag jërëjëf nan la jox suñu nijaay ndax nijaay mooy baay Ibrahima léegi damaa damaa damaa wokk dama dama sama sama nijaay nga wax borom sàmba laam wala nga mel na neen doon ne sama nijaay na wax ndax ña ñu ñaan ak yow yëpp yaroondoo rek ak xarit waaye sa deret na wax ku ko ñime nga. salaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam. waaw. doolu ziar sant yàlla ñu jël ci yonent bi. dina ñaanal nga yàgg loolu tëwër yooyu. Mm-hmm. yàlla. ñu fi teew ñu fi teew ñu ñu doon teew bànneex yàlla nañ ko teew ay déwén yu bare bare bare daaw gunge nañ ko ren ñu gungewaat ko yàlla nañ ko yàgg gunge di sant yàlla nag di di di ko wax euh, rafet euh, li mu def rafet na kontaan nañ ci trop wax dëgg yàlla jël sa kilifa indil ko teraanga loolu moom rek yàlla si yàlla jàppale yàlla taxawu la waaw muy xale bu baax nag ñun bàyyiwuñu ndax buñ ne diw baax na dañ naan ndax mbokk yaa ko wax waaye moom wax dëgg yàlla seetaanuñu quoi te xale bi yaru la bu bu am teggin bu respecté ay ay ay nijaayam wax dëgg yàlla ay kilifaam waaw sant yàlla nag ñu ko ñaanal yàlla gudd ak wér ñaanal ko ñu fi teew yëpp fi teewee ko ay déwén yu bari te tam bañ ko wute ci barki yonent bi alayhi salaatu wa salaam jërëjëf sëñ bi ñu jox teewaay bu baax waaw di leen jaajëfal bis bi ngeen ñëw di leen masawu ci coono jël nuyoo bi di ko jaale ci jaale ci Ibrahima xam naa kàddu yi moom du gudd sax waaw waaye Ibrahima moom day koo xam ne moom sama doom noonu noonu noonu lay doxo noonu lay waxee moo suñu fàllu ak seex nii euh, ñu ci man koo xam ne nag comme ko seet fekk fii ay mbokki taalibeem mag kër yi ñu ne monsieur Moustapha Sy ak suñu Ibrahima màggat nañ ñu ñu toog di ay jàmbaar nga xam ne nag maa ngi leen di sant bu baax ndax kër gi moom ñoom ñoom lañ am mooy suñu rek nga xam ne nit di def ba ba moom boppam mu ne xanaa jàpp sa njàmbur te góorgóorlu ci sa liggéey ñoom ñëpp ci lañ nekk ci boobu ngoon lépp loo xam ne soxla nañ ko rek loola ci la ñuy ci la ñuy génn ñu di sant yàlla bu baax sant suñu waajur bu baax tam itam ndax ndax ah, maa waxoon ne bàyyi ñëpp te jàpp ci taalib yi rek waaw bi ma ko defee wéccuñ moom ah, moom moom mii di Ibrahima dañuy wax ni jëf yoo xam ne dañ lay wax ne jëfal màngam baax na lool bëri na lool la dana tiyaaba waaye ki nga xam ne nag yaa ko jekk coobare sa bopp loo ci def xet ko loolu moo ëppee am te moom noonu lay dox jamono yi may wax naa ma damaa bëggoon doon sa milliardaire damaa bëggoon li ñuy def ci kër gi ma di ko def bu bu bu tëbës gi jotee xar mi muy indi da koy doo ko mën a am da koy fexe doo ko mën a am. wala wala yenn saa yi bu ko amul bu ñëwee da koy yéene ba nga xam ne ba nga xam ne moom bëgg ga am na la loolu la loolu la loolu la mos di wax moom la mos di doxee tuus caate fii ñu itam lam man ak lu mu mën lépp moom ko koy def moom yittee moom jenn la mooy sama soxla rek waaw moo soxla rek jàpp na li ma ko war a jox ndax jàpp naa ne lii muy indi ci màggal moo gën a tuuti ci ay jëfam ci li ñuy def te te te nanguwul ku ko ku ko wax ndax day dañ ko ngir yàlla soo gisee ñu yëkkati si kàddu sax ah day teraanga rek yéen ñi mu àndal te ay xaritam ak i bokkam jóge foofu ba fii ngir yàlla ak gunge ko war na bu ñu ñëwee ñu wax ak yéen ci kàddu yooyu wax leen tànk yi la ko tax a jóg waaye moom ku doon moom dong di ci écouté kàddu sax dafa daan def bu ñuy ànd ak ay ay journaliste sax bu dikkee ba jéggi kër dañu koy toogloo di ko dox la bi dox doole ànd ak boo ñu ko waxee mu ne fii ma jëm du foo xam ne dama fiy jëme yooyu loola loola yaa nga xam ne moom xam naa ne mooy la wér ca moom moo tax sax ma ma ma ma ma ci sànni kàddu yi ñu ci sànni waaye nag may wax ne rek ah bi nga xam ne moo tax mbir daal gis na ko te nit nag bu baaxee di góorgóorlu ak fu mu mën a toll ci mbaax yàlla ko gën waaw gis bu ko yàlla fayee mu fàtte lam doon def ñaan suñu borom yokk ay xéewal ak bu baax a baax gën a liggéey yi te ñaan rek lii ngay def doon ab tàmbali ci sa ci say xéewal ndax loolu loolu nga mas di wax naka jekk da wax ne na naa doon bëgg doon milliardaire doon sa milliardaire te kon nag defe naa la te maa ngi ñaan suñu borom ñu dem ba yegg ba nga yegg ca ba yegg ca doon milliardaire loolu nga xam ne ba nga ko dalee ñaan booba du léegi waaw la man yaa ngi ko cee def ak la nga mënu ñu ngi lay ñaan nga àgg ca martaba boobee incha allah sant Cheikh Mouhamadou Fadel bu baax dafa am solo ndax dëkk démb dong dafa koo xam ne Angleterre la ne bu ñëw fii nuy waxtaan mu ne ma sa taalibe boobu ñuy wax Ibrahima Diop te mu gën ci làng làmb bi man daal bëggoon naa su gannaaw sa xarit laa nga xamale maa ngi moom lu tax moom de daf laa jaawee luy teg dama koy déglu ci rajo bi ba xam ko xam turam waaye bu ma sañoon xam ko de waaw ma ne ko bu soobee yàlla bu ko xam te loolu lépp ak yiw la lu baax la kon nag ñu lay ñaanal suñu borom dolli suñu bu baax a baax a baax a baax màggal bi nag li ci borom waxoon rek sant leen ñu yàlla ku sant yàlla nag yàlla dolli yàlla yàlla dolli suñu bu baax a baax a baax te sàmm la aar leen ñuy yëngatu yëpp suñu borom sàmm kon nga nag ñi ngay àndal ci ñii di ay ndaw it tam góorgóorlu ñii di ay ndaw ah ñu góorgóorlu ci ci ci ci maanaam njub rek ndax njub mooy lépp jub rek am nga lépp waaw waaye man di am te juboo moo tax waaye ku waay ku jub am nga lépp moom mi nag boo gisee ma sañ ko wax ci kanam lenn loo xam ne dunaa ko ci dégg loo xam ne bokkut ak sama moo ko déggee yedd ko lool du ko ci seen du ma ko ci dégg loolu nag loolu nag sant naa ci bu baax a baax waaw sant itam yéen ñi nga ànd ak moom maa ngi leen di sant bu baax waaw ñu ngi ñaan suñu borom fay leen waaw jërëjëf jëf yal nañ ko teew déen teew koy at yu bare bare yal na dolli man bi bu baax a baax barkeel liggéey yi bu a baax. ñu ko def fekk ci jàmm. barke suñu waaye lii nga def na ko na dox. yow ak ñi nga àndal daan na xam bi léegi la ko tëdd rek ñu dugg si. sant